mu mel ni mm, problème mu ndox ci Touba yàgg na fi am yàgg na fi am lool metti na lool it nag rawandate na jamonoy màgg mu am lu nga xam ne bëggoon naa wax ko fii muy manqué ndox màggal metti na ndax dafa fekkoon Touba manqué ndox balaa màggal waaye nit ñépp war nañu def seen xel bu Tuubaa képp doon am ndox lu dul màggalit bu màggal ñëwee dana manqué ndox kon ku dëkk Tuubaa yaa war a jël say matuwaay bu màggal jotee li nga xam ne nag mooy metti mooy màggal jàll ñun ñépp ñu ne fi di mar loolu nag defe naa mooy jafe-jafe jafe-jafe boobu du jafe-jafe bu kilifa yi yëwul yëg nañ ko xam nañ ko di ko metti lu ànd ko askan di ko metti waaye nag euh, jamono ni mu demee tax na euh, ñi ciy wax bari kenn ku ci nekk yaa ngi ciy waxee na nga yéenee wala na jàppe euh, wala wala wala na nga ñu am ab liggéey bu ñu ci sant ñu seq ko ak Maawu Rahmati ak commune Touba waaye euh, sous-préfet ñu ngi koy gërëm moom it di ko beral cantam mu gungeenu ci liggéey boobu ànd ko ak effort ci point focalu Bamba bi nga xam ne moom moo fi nekk doon seen point focal euh, mu doon liggéey bu am solo buñ ci daan def loola nag dafa jotiwut ak programme bi nga xam ne tëraloon nañ ko mu jëm ci màggal ngir mën a gën a yéwénal jafe-jafe yi ci eh, ndox mi ci jëm ci màggal loolu programme spécial la woon moo xam dañ ko seqoon ak effort ak commune bi dox ci nag lu yàgg a yàgg ah ñun nag ay dongo rek lañu ay taalibe lañ yuy wut ngërëm. Euh, amuñu leneen nit lu ñuy dàq lu dul ngërëm ngërëm li rek sëriñ bi rek lañ ko yaakaar yaakaaruñu ko ci kanam euh, programme boobu biñ ko tëralee dox nañ ci ab diir ndax bokkoon na ci camion yi teere ñëw Touba ñu joxe un numéro vert ku soxla ndox woote ca balaa màggal gee ñëw ñu ñëw may la ndox fa nga nekk def nañ ko ba màggal gi des ci biir semaine màggal gi defe naa alxames lañ arrêté loolu ajjuma ñoo war a duggaat ci beneen programme boo xam ne la ko ëmboon mooy ndox oto yi ndox yi dem di rooti ji ci biti dëkk bi di dugal ci dëkk bi waaye bañ di root di dugalaat ci dëkk bi ndax loolu tax ndox a yokk waaye dañu defoon li yokk ndox mi mooy euh, forage yi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw dëkk ci ci mayuñu ndox Touba di indi Touba waaye forage yi nekk Touba yépp continuer ñoom di joxe ci réseau bi maanaam di joxe ci tuyaux yi muy di egg ci kër yi loolu moo doon suñu programme loolu yi doon may ngir euh, camion yi nga xam ne ñooy def ndox ci màggal du yépp ñoo ñooy maye ndox da ci am ñoo xam ne ay nit ñuy liggéey ñoo ko moom di jaay seen ndox te dañuy rooti fi nit ñi roote fa lañuy roote kon ñooña bu ñu root bu ñu roote woon ñun ca biti ñooña faaw kon dañuy ñuy toppi dem rooti ca biti su ko defee kon lépp loo xam ne ndox la mu ñuy liggéey ci biir Touba duggaat ci biir Touba waaye kenn du ko rootiwaat biir Touba di ko jaay wala nga koy rootiwaat biir Touba di ko sotti biir Touba kon loolu ak yokkute rek la mënoon a jur looloo nag ñu ci jéglu kilifa yi bu baax ndax ñun defar rek moo ñu tax a jóg mosuñu am benn yoon it menn xel mu defar loola it ab xalaat la boo xam ne jógewutoon ci kenn nit ay mbooloo ñoo ko tëgg xalaat ko bu juboo ci war koo doxal kon loola man en tant que responsable coordonnateur comité d'organisation ah euh, dama ci jégalu kilifa yi ndax nit ki nga xam ne mën nga koo rootloo mu dem rootal la su la xañee ndox euh, rek ñu ngi leen di xam ne dañ koo tëyu waaye buñ sañoon du demee noonu loola it la ko dindi mooy baat baat moo nu liggéeyloo baat moo ko dindi loola noonu rek la demee li ci des muy euh, problème mu inondation yi fi am loolu it problème mu assainissement la gis ngeen solution yi nga xam ne mooy moom lañ ci jël ñu màggal gi daataan am sëñ bi taxaw ci Touba ci kanam taxaw ci état bi taxaw ci lis ci man def nañ ko mais loolu ndoxu taw la ndoxu taw moom yàlla waxul kenn la koy wàcc li ci ab kay mooy ñuy ñaan autorité yi ñu xam ne yàgg nañ ko wax ne nawet màggal gi ci nawet la jëm waaye léegi kenn nattab li tune ne màggal gi ci nawet la jëm lii fi am ren yàlla bu ñu dimbalee ba ñu fekk ko mu bañ a am mu bañ a amaat loolu nag man koo waajal balaa màggal gi defe naa moo ci solution lu mel ne yoon yi ba tey am na ay rëq-rëq yoon yu bari fii gis yéen a ko gisandoo xam ngeen ne euh, bari na ay problème yoon yu toj na bari na ay ay pax ay ay ay ay ay égout yoo xam ne amuti kubéer bari na bari na ay ay ay problème yooyu yëpp autorité yi gis nañ ko xam nañ ko jàpp nañ ne li ci waa Touba mën a dund lu dul événement fekku ci événement parce que bu dul événement sax danger la ci population waaye nag lu toll Màggal Tuubaa loolu bu amee problème lay jur